baay ku ko xamul da ko laajtewul Mamadou Mansour sa baay ba mu toogee ba léegi ci waawan xiifuñu maruñu jàkkuñu raflewuñu tamit ba mu toogee ba léegi mustag wax kenn lu ñaaw baa mu koy def wallaahi xam billaahi lazi laa ilaaha illallah sa baay xamul lu ñaaw ñaaw xamu ko man man suur sa baay xamul laaw sa baay xamul lu ñaaw ñaaw baay xamul lu ñaaw oh. allahu akbar baay ku ko xamul da ko la teewul Mamadou Mansour sa baay ba mu toogee ba léegi Tiwaawan xiifuñu maruñu jàkkuñu raflewuñu tamit ba mu toogee ba léegi mustag wax kenn lu ñaaw baa mu koy def wallaahi xamul billaahi lazi laa ilaaha illa allah sa baay xamul lu ñaaw ñaaw <laughs> xamu xamul lu ñaaw xamul da ko xamul oh. lu baay ku ko xamul da ko la teewul Mamadou Mansour sa baay ba mu toogee ba léegi ci waawan xiifuñu maruñu jàkkuñu raflewuñu tamit ba mu toogee ba léegi mustag wax kenn lu ñaaw baa mu koy def wallahi xamul billahi lazi la ilaha illa allah sa baay xamul <laughs> xamul lu ñaaw oh allahu akbar